tey moo nekk suñ ñetteeli yoon fii ak Modou Touré Darboe at bu nekk dañ dee ñëw pour awoot ko loolu diggee la diggee nag bor la saa ñu ko yàlla munloo ñu àggale diggee bi because dañ gis lu moo liggéey si réew mi pour contribute national development plan di gis ne mu ngi dem si wàllum social si wàllum feebar ku nit ku feebar si wàllum jàng bi si wàllum gaadina Ah, si wàllum tali ah, gis nañ yooyu yëpp mu ngi siy tàbbal loxam ah, nga gis ne tamit su weeri koor jotee at bu nekk daf day joxe ay saaku suukar ren bi maa ngi ñëw fii di gis na mu ngi joxe tamit ay nag te loolu rek sant yàlla la si réew mi ñuy ñaan yàlla rek lu mun ren yàlla na ko ginnaaw mun si déwén su soobee yàlla incha allah yàlla dina ko mun ñun nag da gis liggéey bu mu def moo tax ñu koy awoot at bu nekk. waaye at bu nekk tamit li nga koy jox wax dëgg yàlla li koy liggéey ba aaga si moom ah dëgg def di kontaan te kontaan boobu gëm naa ne moo ko nekk di puus pour muy def lii tamit. may ñaan tamit Gambiens yu mel ni moom nañ génn a jël seen alal di ko dugal si nit te ñu koy ñaanal yàlla yàlla na may ko fan bu gudda ak wér gu yaram award bi wax dëgg yàlla ren def nañ ko déwén tamit ñu ngi ñaan ñu defaat lu ëppal yi tamit. tey nag indi neen toogu ak juróomi yére ak moom mbubaam bu ànd ak bi so kapinta bi moom tamit ñu koy sant ak gërëm because man idea laa am moom moo dee liggéey toogu yi may sant ak tamit suma staff bi ñoo xamante ne dëgg dëgg nen nañ lot si man because lii kenn nit mënu ko